suñu xarit suñu camarade Abdou Karim Gueye ñu koy wooyee xurum xaax ñun waa aar lu ñu bokk ànd ak ñoo lànk ñun tiit nañu jaaxle nañu mer nañu ci naka la état bi def suñu doomu ndey boobu ñuy fàttali ne xalaatam la joxe ci benn sujet ñi fàttali ne yàggul defar nañ ko ci ay opération yu diis yu soxla mu dem ba bitim réew pour mën ko fa def ndax metit gu metti ndax feebar bu rëy bu ko jàppoon ñu ne ko ngir la waay bàyyi leen kii mu dellu këram nañ ko defee ñeneen ñu def lu gën a garaaw ci dëkk bi ñu bàyyi leen tey jii ñu dellu seen kër ndax Abdou Karim Gueye fu mu nekk nii dafa feebar feebar na ba ñu jëlee ko Cap yóbbu ko pavillon spécial feebar nañ ba ñu perfusé ko ci ñaari fan yi jëm ci gannaaw guddi gi yépp ñu wax ne que ñi seetaan mu nekk ci état boobu wér gu yaram nekk ci état boobu condition yiñ ko yiñ ko téye foofu ak daan yu metti yi ñu koy tegal ak mettit yi ñu koy teg yépp mu ànd ak euh, feebar bu mu àndal lépp lu ko fa dal lépp lu ko fa dal ñu ne ci coobaru président Macky Sall parce que fu mu nekk nii ca bañ koy jàpp ak loi d'habilitation ak lépp benn bopp rek la Sénégal amoon lépp lu fi daan nàcc moo ko moo ko rendi lépp lu fi xew mooy jël décision bi kon bokk nañu bàyyi suñu camarade boobu mu dellu ca këram bala fay musiba di ko fekk ñun ñëpp ñuy taxaw di di di di nekkati ci tolof tolof